Anita dañuy dem ci Adji Sarr mun naa ne moom chaque moment bu ko nit ñi fàttee mun naa ne day bëgg a nekk actualité. ñu gis ko mu génn mun naa ne sinap tekk li nga xamante ni moom mooy ay maquillage yi nga xamante ni moom la war a jëfandikoo bind ci Sweet Beauté. loolu tamit bañ jàngat nga ci am à sa fois Adji Sarr bu ñu ko fàttee rek moom mu mu wane ne mi ngi ci li nga xamante ni moom mooy ci ci réew mi te yaa doon wax am na yeneen yi li nga xamante ne nii Adji Sarr dina ko def bi ñuy jàll. kii dina def sorties yu bëri. ndax te sa parce que lii mu nekk nii. Mhm. dafa neex est xam nga Adji Adji saa dafa dafa dafa miin wangeetu muy dox <laughs> réew tubaab ba mu dem. da xoola xelam nekkul ci ne dafa war a toj xutu xataam génn ci li mu nekk. Mhm. ba pare moom raasu kaña gi mu dugal boppam loolu la waroon fexee génn ci duggaat ci raasu nit. moom Adji. waaw est-ce que mënati na nekk. ah mais tey am na noo doon def nii noppi. Mhm. yaru. sénégalais mën na fàtte léegi mun nga ko def lu rëy am na looy def lu lenn rek mu fàtte lépp. Mhm. du dëgg. Mhm. mais di gën a def yi nit ñi dañ lay gën a mere. Mhm. voilà Adji Sarr xam nga lu tax ay waxam kenn waru ko wax xam nga ko. Adji bi mu nekkee ci diggu coow li li coow li di bëri bëri mosoo dégg nit ñëw ne la Adji Sarr maa ko luye woon. fii la doon taxawaalu rek ngay dégg. moo tax ay waxam du wax. ba pare woon naa la fi ba ka bañ ko ba ka nit doogee jël laa ne la kaay ma jàngal la Adji Sarr nga ne ma kuy Adji Sarr ma ne la Adji mhm. mu ngi mel ni xale bu ñu ra sol xale bu ñu jël solal ko ba mu rafet mu day kuus bi ku ko jël bu ko day xeeñee mu sànni ko <laughs> jubóor dafa neex. waaw waaw. waaw te day nekk jigéen boo xam ne day génne boppam ci jigéen duggal boppam ci ci kaso. maam boo gisee li nga bëgg a wax boo ko takkee du dem marché. yaay dem de. d'accord li ma la li ah. ma bëgg mu leer kii li nga bëgg a wax boo gisee da koy bëgg. amaana bu nekk ci yow après doo ko. da gisal fii kon la fi fenal waaw fen yi takkar naa sa mel ni tulleeg maale bu amul lu mu wax sax day wax. kon aju Sarr waxoon nga ko waxoon nga am la na ñoo xam ne am na benn waaye dafa tàmmoon sàcc ba nga xam ne bu amul lum sàcc day teg bagage bi nii làqatu daw rek ko daw te bagage la mhm. aji dafa tàmm jaxase ak fenn ba nga xam ne bu amul kum ko def mhm. moo xool dina def taati neen bind ko ah bon man maa ko wax lu motif nañ ko xaar dinga ndax bëgg bëgg rek lépp lu xam ne bu ko defee ngeen wax ci dana ko def Mhm. xam nga moom bu doon njar la fu mu toll nii mu ngi si Zurich. ndax du wéy waaw waaw waaw waaw waaw waaw xoola dem na ba nga xam ni xoola dem na ba nga xam ni. munatul toog ci ay loxo. toog xoola waaj waaw waaw waaw yàlla naka yàlla teral. <laughs> yaa ngi dégg. ma ni. aussi bi ngi laajte numéro xam naa après de la ko jox. Ah. incha allah ah joxoo ko. waaw ah. ko mi ngi doon. waaw ah, dañ koy waaw. <laughs> d' accord dinaa ko waaw. Hmm. voilà Adji hmm. dafa dem ba nga xam ni fu mu toll nii. nekkatul ci ay loxo. Hmm. imaginel Abdou Khoudia nga nekk ci ay loxo dem ba nekkatoo ci ay loxo. nekkatul ci ay loxo. bi muy doog a commencé si lu mu nekkoon. ci lu mu nekkoon ay loxo waaw léegi lan moo tax mu dem ba génn ci ay loxo mhm. tukki Europe kan ci loxo kan la nekk foofu ci loxo boppam waaw xamuñu ba léegi léegi xoola ku mën a nga nekk ci ay loxo ay loxo di la téye ba ay loxo mënatul laa téye ay tànk di la bëmax ba ñu puus la nga dem mhm. kenn bëggatu la xoola bu ñu fekk lu xam ni mbalit la ñu bugg ko yanu indi nañ ko moytu. Mhm. waaw. est-ce def am na sens Sweet Beauté bi muy wax di ko fàtte. waaw mais Sweet moo ko def li mu doon doon na dund ba dee du dem Europe. Sweet Beauté Sweet si la demee Europe bi. du bàyyi mhm. Sweet Beauté. du ko bàyyi mais xoola toogal foofu ak sa Sweet Beauté rek yow. <laughs> waa jàppal ni Sweet Beauté moom toj nañ ko ba nekk ci leneen. yow continuer Sweet Beauté rek. amul benn problème continuer ko dégg nga. Mhm. waaw continuer ko rek. d'accord yow yow tam. ak mhm. Sarr ay waxam. Mhm. nekkatul ay wax sax. vraiment. ah fu mu toll nii xanaa loolu nit day tollu ci euh, nan lañ may def nit dafay toll xam nga loolu. ah. ak nan laay def. nan laay def waaw. mais est-ce xam nga moom nan si fan la toll fan la toll nii xam na ko. nan lañ ko war a def. moom aji. foofu la toll de. mais sénégalais yëpp est-ce que xam ne Jimbori ñu naan aji saar fu nekk dañ ko war a jël. waaw déedéet xam mooy mooy li ma la wax. nan lañ ko war a def munoo toll ci nan lañ ko war a def nag di di di yaakaar ni yow nan lañ may def ci lañ toll. yooyu mu doon def jeex na de yëngal nii nit ay dindi ay xaalis di ko ko jox. jox waaw. Hmm. nee ko fi ñu tegoon xaalis teggi nañ ko yar moo fa tege bu weddee na ñëw. Hmm. wala kenn rek si ñoom génnaat fii di jéem a jëmmal loolu. way mhm. d' accord. ajuma euh, dañuy dem moom mënoon na xool ci yaayam. moom ay yaayam fi la nekkoon aw Mayendeb bu di am xaalisam dem toog. yaa ndax <laughs> awu Mayendeb. Mayendeb ma Mayendeb boo ko xoolee si wetam. Hmm. ki doon toog si wetam kooku mooy yaay aji saat. Ah, xam loolu. boo ko tàppee di nga ko gis. ñoom ñaar sax benn xalima lañ ñoo ndróo oh. hmm? moo doon aw noonu si làmb ji moo doon aw. yaay aji waaw defu fi lu ñaaw de. te nee nañ tëb sa tëbinu ndey dana rax sa ndigg mais bu yàggee nga mën tëbin bi. dëgg la mais moom dafa tëb tëbaat. Hmm. waaw mais nag gis nga. Hmm. bëy bu rëcc dugg ci àll. ah. àtte hmm. bi ñuy àtte kéwal lañ lay àtte. parce que kéwal meng la sant. waaw. naa dégg ñu koy wax. waaw ayca. àtte kéwal moom nga la bëy di am. bu tëbee dugg ci àll parce que fu ko gaynde seen dàq ji ko. waaw. comme nag bëy bu rëcc la dugg ci àll ah mhm. voilà bàyyi kook bukki yi ak segg yi ak gaynde yi rek bismillah yi continuer li ngay def dégg nga bul bàyyi acca demal <laughs> ok li ma jaaxal mooy liggéey la ci xaar ay lomotif aji saar man aussi jumba non lu ma la mas a wax ni def na ko def na ko waaw benn bis ne la di ngeen ci di ngeen jot ci aji saar yéen presse bi waaw influenceurs yi sax dinañ ci jot ñu jot si man lu ma la wax ni loolu lay def loolu lay def lomotifam nañ ko xaar xaar ko man maa la ko xaar ko de waxew ma la waxu kese nii de xaar ko de d'accord a jumbori parce xas xas na ker ba pare xanaa am loo hmm. euh, jongama ju ker ah hmm. ak ndaanaan bu ker ah hmm. lépp xaar leen lépp luñ la tuddal ci jukko ñàkk fayda dinañ ko def dëgg jongama bu keree. <coughs> bu ker ker xam nga ker. ker waaw. mooy ku toog du def dara. affaire yi di dox. affaire di dox toog muy dox bi. fi muy mujjee xam nga ko. xaaral la motifam mën na laal ko wax. moom aji. waaw incha allah waaw. <laughs> loolu la ko wax. loolu wax la ko duggee waxee. waaw. jubóoy dee naa la fa damay am mbégte. Mm-hmm. à chaque fois ñuy toog di waxtaan parce que li ma laaj rek ni ma koy delloo di nga xamante ni mm-hmm. noonu laa ko bëggee ak ñi nga xamante ni ñoo ñi seetaan noonu lañ ko bëggee. Mm-hmm. mais juma dañuy dem ci assemblée nationale aussi. il fallait ñu taxaw ji parce que jamono ji mën naa ni assemblée nationale dafa taxaw. Ah, ñi nga naan dañ koo war a tas président de la Bassirou Diomaye sax saisir na conseil constitutionnel pour ñu euh, maanaam tas assemblée nationale. coow li bari. ban jànkat nga am ñi naan dañ ko war a tas ñi naan dañ ko war a xool nag la ñu mën a waxtaanee.